ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën bee boor mën ci yi ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor siy jeeg gën gu Pierre Aïcha ñu ñëw ci jàngat bi dox ci diggante Balla Gaye 2 ak euh, ki nga xamante ne mooy Yaxya Jóob Yékini Yaxya Jóob Yékini def onze ans de carrière wala quinze ans yoo xamante ni euh, daanuwul laalu ginnaawam laalu suuf mu daje xale boo xamante ni euh, Yaxya Jóob moo ko jiitu ci làmb bëri bi muy dugg ci làmb gaa xalaatu ñoon ni dina toll fii ci làmb ba dajeeg Yaxya Jóob Yékini làmb ji doon làmb ju neex ñoom ñaar ñu bëri ci mu nga gis ci li ci xew lépp lan nga ma mun a wax ci combat bi. waaw combat bi li ma la ci njëkk wax Yékini euh, mm-hmm. ak euh, Balla Gaye mm-hmm. dama mas a wax ci benn benn euh, rajo Ndiakhate. Mm-hmm. ak Mame Ngagne Ndiaye. fekk na booba neex la di daan. di daan ak gars yi ñoom mbir yi ay bombardier laaj ma ci carrière am maa ngi leen gis ñi fi am doole ñi fi am doole ci bëri moom. ñooñu amoo amuñu xam-xam. Mm-hmm. maanaam ñi ñi mu tolloon jamono ci ci doole. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay massa doon lañu comme moom amuñu bu ko daal. Mm-hmm. mais yi am ñi am bëre bu ko daal nag ñooñu amaguñu doole. waa ji dafa kan nga yaakaar naa ne ko Balla Gaye ci la bokk. Lac de Guiers ci la bokk. Elton ci la bokk. Eumeu ci la bokk. am kii ci la bokk. Euh, Modou Lo ci la bokk. ay xale parce que seen doole amagul am nañu xam-xam bi am nañu bu ko daal. waaye nag bëre amoo ko parce que fi mu ne nii. Hmm. amoo ko ñu doole mais ko fekkee ji ñoo koy génne làmb. Hmm. mu ne yaakaar nga loolu ma ne hmm. xale yi mu doon ñu ngi ñu wéree yi ñëpp xale yi mujj ko doole wala a parce que moom avant combat bi biñ koy laaj yan mbër nga gis ni ëllëg mën nañoo téye làmb wala dinañ la mën a sonal ci làmb Yaxya Joob ni lim na yi te boole na ci ñooñu nga xamante ne tudd nga leen léegi. waaw. Hmm. parce que xam nga loolu li ma koy wax. Hmm. nekk mbër mu nekk xam nga ki koy fali. Hmm. ñi nekk ci gouvernement bi xam ne tey jii euh, ñoo nekk ci kanam. fii ne am nañu ay booy yu bëri xam ne xam ne kii suñu guddee fan ñoo ñu ko Ablaye Wade xamee woon ni ko Senghor xamee woon. Ablaye Wade xamee ko woon Abdou Diouf xamee ko woon. ko ñëpp xamee ku

mooy Balla Gaye état de forme bi mu indi ak Yékini euh, état bi mu indi ñoom ñaar Balla dafa mel ni Yékini ëppeewu ko dara ci làmb ah. booy xool sax da nga naan Balla Gaye mu ëpp Yékini mm-hmm. ah, waaw mm-hmm. moom de xam nga dafa am loo na loolu lal la parce que gis nga góor mm-hmm. su tolloo ci cent kilos rek kenn mënatu ko quatre-vingt-dix kilos cent cent dix maximum kenn mënatu ko te loolu mbir yu mag yi may seetaan ñi nga xam ne jaar nañ ci làmb xam nañ li mhm. ay quatre vingt douze ay quatre vingt treize foofu la poids de forme mais moom pour ñoom dañ ne ko boo amul mes boo amul poids bi kii am. bu nga daan ko doo jafe. loolu teg ci boppam. Mhm. moo tax moo da ko daan wax sax naan ko bu buñ tolloo ci làmb yi buñ tolloo doo ma ëppee dara. Mhm. doo ma ëppee dara loo am dara ko am dara ci loolu. ci li ko ëppee bi amul solo. xam nga lu amul solo. mooy xam-xam bi ak bi ak pir bi rek ñi naa waaji ñi naa bëri moom am naa xam-xam ko daan te mën naa ko daan hmm. war ay ca léegi xoolal taxawaay bi ñoom ñaar ni ñu taxawaaye taxawaay seen taxaw hmm. même bi yoon taxaw bi hmm. waaw parce que taxawaay parce que loolu mooy foram pied gauche da koo arrangé non mooy mooy mooy loolu. xam nga maa ngi la koy leeral boobu ñu commencé waxtaan ba léegi maa ngi la ci leer gauche ak droite. Mm, mm. maa ngi la koy leeral. Mm. mais gis nga moom parce que pied gauche yi jiite di côté gauche ñëw def recul droit. soo jiitee droit dina mën a contrat day doon recul gauche. loolu nag am jàng la su demoon ba jàng ko rek ba entraîné ko ba entraîné ko. li mu mën ci gauche bi loolu lay mën ci droite bi li mu mën ci droite bi moom lay mën ci gauche bi loolu lay jàngale kat. Mm-hmm. mais bu fekkee da ngaa doy ci la nga mën rek loolu rek laa mën loolu laa lay jàng doo avancé booy. dëgg la moo tax ñoom ñëpp ku ci nekk la nga mën rek moo tax benn jour dëgg laa benn reporter naam man ñaari mbër laa fi gis ñuy bëri deux pieds. Hmm. ah, ah ak kii ak kii nii ma ne ko juum hmm. ko téléphoné ko juum ba sëñ bi bu ko waxee loolu. liggéey bi mu am yëpp ci gauche bi Balla Gaye li mu am ci gauche bi la ko am. Mm-hmm. mosoo gis Balla Gaye bu bëri kàddu si biir Balla Gaye tegal la droit. Mm-hmm. mosoo gis. déedéet Yékini ni li mu ràññee lamb di daal di daal yëpp mos ngaa gis arbitre mu teg droit bi. déedéet gisuma mosoo gis. déedéet kon tey ku nekk la nga mën loolu ngay loolu nga avancé. Mm-hmm. dëgg la dëgg la. looloo fi nekk nag ñuy dem mais tawaay bi baax na. baax na mais xale yi dañoo màgg daf si ko. ayca ñu dem. waaw. isa Balla Gaye mu nga ferme ci suuf rek. ak ak jàllal ci kaw. Ah, gis nga gis nga. Balla même na rek dóor dóor. jàpp te gis te Yékini du mbëru ngemb. Mm. du ni Balla Gaye mm. mbëru mm. ngemb mu feeñ ko ci. ni Balla Gaye bëri ngemb doon wala dañuy taw moom lan mooy bëri moom. waaw kat. Yékini. waaw dëgg naa. sol dëgg naa sol dëgg naa loolu mais maanaam bëri bee wuy si ci loolu rek mu def ko hmm. waaw ay ca di dem ba ma xamee droit bi hmm. gis ba hmm. ko waaw fii yëpp day déplacé pour génn. Mm. Mm. waaw gis nga gis nga xëy mu téye. comme am na si géej gi dara lu mu jàpp rek. Mm. balaa balaa suuf gis nga kii jàpp benn su su su ma doon di fii rek su doon doon naa nekk kii kii. loxo bi jàpp bi jàpp. bi jàpp ba ba pare loxo ba yéegi ni dafa mel ni lu mu bëggoon mooy loxo Balla Gaye bi jàpp deñ rek deñ ci ñoom deñ xam nga comme deñ hmm. te moom jàpp na ko hmm. hmm. jàpp na ba Balla naa baax ñii seetaan leen xool ñaari loxo la jàpp na bii jàpp na ba pare nga téye na ba mu dama bàyyi loxo loxo bi liggéey mm-hmm. bu ko ci amee. Mm-hmm. te parce que loxo ba mm-hmm. parce que bi na wala boog su bu a liggéey dina te kon bu bàyyee fii nag loolu bëggoon na ko na. dégg seetlu waaw comme comme bëggoon bàyyi loxo bi rëcc na waaw ay ci ñu dem. gis na. jàpp na na téye. Mm. loolu la la su mu loolu la loxo dugal wala gis nga ba àll bi kii mu ngi jéem mm. mm. da koy xañ. balla waaw gisoo dafa daal di raseel yow bi. bu xam na ne bu kii téye ba téye. dañ kàlla ñaanal amati da koo ndengee rek puus. Mm-hmm. parce que ngeen jëm. déedéet fenn. dara dara dañuy rek. waaw buuxante mm-hmm. ñu dem. tante na action moom baal ma. gis nga tante boobu. Hmm. ko doon xool ndax doole ji ndax doole ji mu am yëpp benn kóol hmm. bi mu si dewul. dama ne benn hmm. tekk bàyyi ko. xam nga wàññi daw dewul. mu tegaat ko loolu tamit dina am leen dina ci daal. mooy sëriñ léeg-léeg mu jógee daal di naan dara. waaw. léegi peese ba xam dara mm, a ngi doon. Mm. la ko wax. Mm. teg ko fa ndànk dem seeti leneen. la ko wax <laughs> waaw ah. ay ca ju dem.

Hmm. nga xam nga ko téere ngeen bëri. waaw moom kii su doon jàpp katu ngeen moom day wut ngeen ba fii. kan Yékini. waaw loxo bii. Hmm. di téye ngeen ba bii su dara du am dafa téye sama ngeen mu téye ngeen ba. Hmm. benn loxo libre sama benn loxo libre. yaa ngi dégg li ma la. ñu ñu la waaye léegi dafa daal di ñëw daal di jàpp tànk bi dafa yoo ñëw jàpp tànk bi. léegi nag kam fu nga xam ne Balla Gaye kan la day déplacé dëbb ko noonu. day ah, déplacé dëbb ko noonu. waaw ay ca ñu dem ñu dem. gis nga dëpp na ko nooju rek te waaw ah fii katapi hmm. waaw fii arbitre bi lan la waroon def père comme katapi bi tuam la arrêté combat bi taxal hmm. loxoom moo doon yoon mais Balla Gaye gis naa ci moom benn jikko hmm. bi leer ba ba muy wax ba nëgëri laa wax de ku mu mas a daal ba ñu werante mën a sifle waatal ñëwoon waaw man fekk ko. ban combat. bëri naa mhm. mu ñëw mhm. mu ñëw ba ci leen ci ne ma père loo wax mhm. mu ne mu jàpp ko xaar ko doon suuf maa la ko wax leen na nañ. ay ca ñu dem ci combat bi fii Balla Gaye ko mu du bëriwaat. maa la ko wax. waaye bu gis nga mbër mu gëm boppam. Hmm. ah daal la jël bu leer rek kontaan la. la waaw dafa gëm boppam xam na ni kii man naa ko daal moo tax bi ko dóoree dañ nooyu bi ki ñuy yëkkati champion moom la daal nga am moom lii te ñibbi woo gëm nga sa bopp. gëm nga sa bopp. d'accord d'accord naa d'accord naa de. su maa la ko wax père kay li nga wax kenn mënu koo dindi. yéen bu maa la ko wax li nga wax nii naa. kenn daanu. te lii hmm. jël la. Hmm. Hmm. daal di la te bu Balla ñibbi woon CNG dinañ ko jox ñu mujjoon. ko def jeexoon na. ay ca ñu dem. ñu xool fi muy mujj. mu tàllal loxo bi. waaw gis nga bii yëkkër yi. waroo woon tëb rek mu waroon def waroo woon tëb laasé bii. Hmm, lu mu waroon def. bii bi waroon hmm, indi droite bi. Hmm. bii moo gën a moo ngi un Hmm. bu déplacé wu dafa toog fi jékki-jékki léegi rek samp waa ji def rotation ay ñu dem. fii ñu jàppante waat. waaw ah. avant ko dellusi delloosi waat ko tuuti avant jàppante ah. Ah. la. kii Balla Gaye dafa révélation sëgg rek jàpp ko. waaw que hmm. dem. Hmm. loxo bii war woon a dem gos gosam bëri la waroon jàmm. gosam hmm. bi day jàmm bu dalee droit bi ñëw nemm ni. maa la ko wax bu dalee mu taw bu may tàmbali bi néew loolu moo doon yoon man loolu moo doon yoon ay ñu ñu dem. gis li ma jaaxal sa yu sëqee geño rek day am moom bala Gaye. waaw day parce que loxo bu bëri forum la. Hmm. foo jaar mu yàq sa ngem te forum la. Hmm. maanaam Balla jàpp ko du ngem la bu gëmoon sax xool fële sax mu ne hëpp mu ne nit sa ngem parce que loolu may na ci am. foofu hmm. forum la. waaw. ayca ñu dem. ñu dem. Yékini bal na ko. mu ngi koy forcer fi mu toll nii. gis nga teel ma ko waaw. gis nga tànk bi fii. waaw gis nga gàllankoor yi kii. fii xam nga bu mu def. waaw di ko caxabal da ko doon déplacé ba tànk yi hmm. mu jógee fii mu toogal ba mu déséquilibré. Hmm. mu doon rof caxabal doon ko daw yëg. Hmm. mais dafa fekk dugul. waaw ah, gis nga lii. waaw xam nga jàppul. waaw mais gan soo xamal ne dafa war a jàpp fekk loxo bii dafa war a jàpp loxo bii bi buy dugg daf koy dafa déséquilibré ba pare. Mm-hmm. Mm-hmm. ba xam ne waa ji taxawatu. moo mm-hmm. doon def action. mu da ngay ba pare doo rof caxabal. mais a lii mais ko caxabal kon da ko ma xool caxabal bi bi mu ko ah, dóoree caxabal bi. Ah, fi mu toll nii day mel ni sa waay day pivote. gis nga taal bi taxaw ah, ci loolu gis nga. xam hmm. ba jàpp na ne te loxo caxabal bi hmm. que fii mënoon na toog loolu dafa ko réussir mu génn assuré woon hmm. que prise na mais bu réussir da ngay fekk prise ba taxaw moo gis nga coono doog caxabal bi mu dox nii. Mm-hmm. caxabal bi mu dox nii dafa waroon déséquilibre xëcc ba waaj ba mu ba tàkk yi jóg. mu mm-hmm. doon dox caxabal dëgg ko mbooti jolof wala mu jéem a mu wala yooyu mën na fa am. Mm-hmm. waaye du ko xelam may rek mu def foofu comme xelam may loolu waaye taxaw na gis nga waa ji téye na dafa def. ayca ñu def waaw dafa ñu rek bañ ko parce que tànk bi dugg tànk bi duggul. kon tànk bi ñàkk dugg bokk na ci li ko yàqal combat. waaw tànk bi duggul. et puis tànk bi nga ko dugg tamit dafay nga déséquilibre waa ji soo ko déséquilibré wul doo dem. Mm-hmm. mu ngi mel ni xoolal nga fekk muul bu kii brique bu kii maanaam fondation bu taxaw ba di këñ. waaw miir bu taxaw ba di këñ ëmb ko doo dem. déedéet doo dem de. waaye bu jengee ni nii. Mm-hmm. boo ko waxee mu daal. ay ca ñu dem moo tax jura. Mm-hmm. moo tax jura kaa yi boo gisee ñu bëri xam-xam dañ lay jàngal. li ñuy dee ponkal noo koy déséquilibré bu amatul doole. parce que doomu aadama ne yàlla am na loo xam ne bu ñu taxawee fukki baaraam mënu ko daal. waaye am na loo xam ne boo leen taxawee benn baaraam mën na la daal. loolu dañ ci àgg. loolu te ñoom dañoo jàng déséquilibre mais déséquilibre bi njëkk ni moom la war a def. Hmm. mais nag day def ko moo tax gis nga. Hmm. mais bu dul rafet jaxal a dugg na waaye ñu fekk téere jafe dafa teel tur ko day tëdd. am na solo la waxoon rek ca commencement ba ñëw. mooy hmm. mooy loolu te xam nga Yékini ràññee na carrière am. def ko carrière bu rafet daal ñëw bu ñëw carrière bu rafet. mais nag démérité wul xam nga sama ne démérité ah mooy. ñu xale yu ndaw yi toppoon ci ginnaaw ñoo màgg fekk ko fi. Mhm. xale yu ndaw yi war a jël seen wërsëg ñoo màgg fekk ko fi heureusement nag bi mu teelee xam boppam xam ne man mii kat nekkoon ci man nekkatul ci man. Mhm. mu am ci ñaar dafa daal di bàyyi. Mhm. loolu grandeur la. loolu grandeur la. ndax kenn ko ñëpp. déedéet ndax. askan bi ñëpp dina ko. déedéet sama genn góor dama laa wax. ne gis nga làmb boo ci yàggee. loo defoon di des la ko moo tax boo ci tolloo di ko def soo ko waree nga nga sotti am beauté waaye bu fekkee da ngaa jënd làmb ji continuer di ko ñaan di nga ndam yi nga defoon yëpp day mujj suur. day mujj parce que ay defar rek koy mujjee. bari na hmm. ay champion yu bari mën naa la limal. léegi hmm. seen carrière rafetul parce que dama ko wax si ay seen doom bi ne gis nga waaye dañoo ñeenti làmb ji. Hmm. dañoo ñeenti dañoo dem ba seen jamono metti ñuy ñeenti làmb ji ñu di combat ñuy di leen dóor ñuy daanu ñuy di leen def ay dóor ay finalement daal la ñu mujjee. am na solo am na solo Père Birahim parce que boo déggee li mu wax ci làmb yëpp nga xam ni loolu njariñ la woon mbokk yi seetaan wasaare làmb euh, loolu lañ leen indiloon tey ma ñëw taxawaat fi dend ak Père comme niñ koy defee loolu lañ leen indiloon tey ci jàngat làmb doxoon ci diggante komba bu mag bi di Yaxya Jóob ni euh, ak Balla Gaye 2 père ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. dëgg la maa ngi kontaan trop. Hmm. ci question yi sama gars yi sax yu baax dañuy apprécier. Hmm. ci question yi ni mu koy posé quoi. Hmm. parce que lu bëgg a réer loolu muy tekki. loolu dama koy sama ko jël ci Mbacke Sylla mu neex wala. ndeysaan maa ngi de passage ak Saliou Sall. ak Alioune Mbaye. ñëpp waa Sylla maa ngi leen di nuyu samay nit. te nit. xam-xam boo ko bëggee am hmm. lépp mënoo ko am déedéet waaye di nga am loo xam ne nga jël ci jiiri hmm. jël ci kàggu jël ci aadama jël ci hmm. kenn la waaye bul ne nag gàtt xel ne man rek maa am xam-xam man rek maa mën déedéet gis nga tey jii liggéey bi ñuy def liggéey doon doon sama doom dégg nga am na loo te xëy na yow it yow it mën naa ñàkkul maa ngi jël paire yow kay toll yi dag jox ba ba doyal billaay. àddina noonu la quoi. Mm, mm. kon tey yàlla yàlla yàggal ànd bi. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla suñu sutura. amiin yaa rabbal aalamiin waaw mooy sama gars yi ñoom Birame Dama Ndoye. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu soxnaam Seydou Ndoye mm-hmm. ñoom ñëpp. parce que France dañ nekk. Mm-hmm. ji li maa ngi nuyu ñoom ñëpp. ak ñoom Issa Diène. ah sama gars yi bàyyiwuma kenn daal. ku lim juum waaw. waa suñu groupe bi tamit. Hmm. Euh, waa association. association des sages de la Sénégal. Ah. maa ngi jox ko bi ba kontaate mu joxal ko ñëpp. dëgg la waaye ba kenn ñoom Serigne Kane. Hmm. kii Cissé am bu bëgg ko wax dëgg la dëgg la may mu ne Cissé laa ma wax. ndeysaan dina ñëw Cissé. Hmm. di kontaan ñëpp di kon ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërëjëf père jërëjëf ndaanaan laa ñaari yoon bor boo booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma yor si jeeg